ñu fàttali ni association consomateur du tey rek la am Sénégal yàgg na fi am euh, ci euh, loolu itam ñu ngi sargal euh, di gërëm ñi nga xam ni ay pionniers lañu woon ci mouvement consumériste te ñooñu bari nañu am na ñu nekk ci suñu association ci suñu fédération am na ñu ci nekkul kon ñu ay ñoom ñëpp nag ñoo bokk jëmu. mooy jëmmal suñu taxawaay ci soxla askan wi kon ñooñu ñu ngi leen di eh, duñu soxla mu tudd tur waaye ñoo xam nañ seen bopp kon ñun fédération bi li ko tax a jóg d'abord lan moo tax ñu taxawal ko fédération bi li tax ñu tawa taxa ñu ngi ko tabaxal ñu ngi ko taxawal en 2018 eh, précisément le 18 août 2018 li ko sabab itam mooy Euh, deux 2018 boobu le 14 mars 2018 dafa amoon ba benn conseil des ministres booba président premier ministre am na sax bu nga xam ni président de la république dafa santoon premier ministre ak ministre mi jox leen ay instruction benn instruction bu am solo sax ni leen léegi damaa bëgg lépp lu ngeen di décider ci walla ngeen koy def bu jëm ci askan wi te mu laal way jëfandiku yi dama bëgg laata ngeen koy jël ngeen waxtaan si ak ñi nga xam ni ñooy association consommateur yi ba am seen xalaat bu ko defee ngeen xool la ngeen mën a jël ci seen xalaat ngeen jël ko leneen boole ko ak yeneen xalaat loolu mu nekk instruction boobu kon ñun bi ñu déggee loolu ñu ni ah loolu day euh, avancé bu mag la ci suñu xeex bi ñu xeex boo xoolee réew mi bu baax mënoo ñëw rek tànn benn mbir mi ngi dépendre li ma la wax léegi mu ngi dépendre ci as euh, ku nekk askan wi dañ tas ci réew mi te foo dem rek réalité ba fa am ak problème ya fa am bokkul ak ya am feneen. Euh, ba ma ba jël benn exemple démb bi ñu demee rek bu ñu demee Mbàkke rek gis nañ ni Mbàkke problème ndox mooy seen problème jë jël nañ ci jël nañ ko en charge incha allah fii ci Touba sëriñ bi dégg li mu wax. santé éducation maanaam problème yëpp am nañu secrétaire boo xam ne li muy wax yëpp daf koy jël te dañ koy enregistré aussi loolu yëpp kon mënuñu ni lii mooy problème bi wala lii mooy problème bi fépp la foo dem rek ak problème moom waaye problème bi c'est dëkkuwaay bu nekk dafa am spécificité comme ni Touba ni mu waxee nii Touba dafa am loo xam ni Touba la am am problème boo xam ni Mbàkke la am am problème boo xam ni Tambacounda la am wala feneen ak feneen fu ñu jëm rek am na waaye rek ñun nag suñ boo ñu indilee problème yooyu dañuy ñëw na segg problème yi diwaan bu nekk ñu xam problème ba fa nekk bu ñuy wax ak nit ñi kay li jëm ci problème boobu ñu wax ak moom ci nii mu mën koo def ci teraanga ak sutura ak ak déggoo moo ñu gënal comme ni ma ko waxee léegi bu ko mënu itam ñu xool ñun yan jumtukaay la ñu war a mën a utiliser ba fexe ba loolu bu dee suñu àq ndax suñ problème yi mooy àqu jama àqu euh, askan wi ñu delloo ko loolu mooy suñ problème loolu nag lu mënu jaral dañ ko def waaye li ñuy jëkkee mooy waxtaan ba juboo ci lenn ak ñi xam ne ñooy saytu mbir moom euh, fi mu nekk nii dañu nekk ci euh, comme ni ma la waxee loi boobu mu ngi tudd loi sur les prix et la promotion du consommateur la protection du consommateur loolu loi boobu la dañu jàpp ni mënul woon ñàkk bu ñu ko defee assemblée woteel ñu ko pro président promulgué le le cas léegi li ci des du du caaginu loi boobu du caaginu am pour anticiper ci benn question du caaginu dañuy ànd lan la ñu prévoir pour euh, pour accompagner ñi dem ci yoon problème bi mooy que léegi ci suñu bopp dañu am droit dem ci yoon ñun amuñu woon droit yoon mayuñu woon droit. ñuy attaqué kenn état bi walla keneen ci yoon léegi nag am nañu droit état ci boppam ñu attaqué ko ci yoon keneen ku nga xam ne du état waaye def na loo xam ni eh, warees na ko attaqué ci ñu attaqué loolu nag avancé bu mag la ci ñun eh, bokkul ñun da li ñu daan def moo doon accompagner loolu moom mos ci ku ku ñu gis nii sa al àq sa yelleef ci wàllu woowu am nga ci ay jafe-jafe ba dem justice dañ laay accompagner duñ la seetaan. waaye nag amuñu woon droit euh, di di la di toog sa place wala di wax waaye daan lay wutal avocat bu dee location yi location par exemple bu dee location am na dossier yu bëri yu nga xam ne ñu ngi tribunal bi yu nga xam ne entre ak euh, ñi ak ak bailleur yu xam ne ñu ngi tribunal bi bés bu nekk am nañu avocat boo xam ne loolu loolu rek mooy métier foofu la nekk di leen dimbali ci loolu waaye léegi nag dimbal googu léegi dafay soppeeku ndax léegi non seulement dañ leen dimbali waaye bu tëyee foofu ñun suñu bopp dañu ñëw nekk partie civile ci mbir moomu yoon may nañu ko léegi. voilà màggal yi nga wax itam euh, euh, barki dé démb def naa démb bu màkkee wax nañ ko waxtaan waxtaan nañ ci lu xaw a yaatu loolu dafa am euh, ñaari mbir ñetti ñetti ñaari service yoo xam ne faw ñu joge leen ba. secouer leen ñoom seen bopp ah ba noppi nag duñ leen may jàmm tant que jëluñu parce que am na ñoo xam ni ñun rek mënuñu ko gérer. ñaar yi mooy benn bi mooy euh, le ministère du commerce benn waaye beneen bi mooy les services d'hygiène du d'hygiène nga xam ne ñooy saytu wér-gi-yaramu doomu aadama yi ñoom ñaari service incha allah balay màggal wéy ñëw daañu daañu am ay jataay ak ñoom ah euh, euh, bu fekkee ni dañu war a mobiliser ñun. ay nit wala ay xale wala ñu mën doon pour dugg euh, avant màggal gi ñëw ñu mettre benn dispositif boo xam ne di dispositif de protection de des consommateurs par rapport ak les les les les produits mis en circulation te waruñu euh, war leen a consommer loolu incha allah ñu ngi ci di ci liggéey waaye mënuñu ko def ñun rek il faut que ñu ànd ko ak les services ñi nga xam ni ñoo fi nekkal état bi euh, mooy. et euh, le contrôle euh, le contrôle économique enfin le ministère de, du commerce ak le euh, le service d'hygiène